U1 U2 U3 U4 U5 dama bëgg di woote saa su ne bés bu ne ci réseau yëpp ci njëg bu yomb te loolu yëpp ci Tigo laa ko mën a amee ak Tigo bonus yi saa su ne la ci crédit boo mënti jënd jaratul may xaar bésu promo aajotul may tiit ci validité bonus ndax Actigo chaque jour promo bonus la te li ci gën a neex mooy sama crédit day yokk ñaari yoon ci njëg moom ma mënti jënd muy ci carte wala ci isi li ma gën a neexate nag ci bonus 100 pour cent yi mooy que damay woote ba naaw ci bépp réseau. léegi Actigo xéewalu leen ci bonusu 100 pour cent bu ne saa su ne ci opérateur yëpp ak ci bépp resaas. messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Dakar ne dort pas. Dakar ne dort pas, merci de rester fidèle au programme de la TFM. Alors, plutôt belle nuit, je vous dirais ce soir, parce que vous avez choisi de passer une belle partie de votre nuit en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Ce soir, Dakar ne dort pas euh, sera à Ziguinchor. Cette localité qui, malgré les vicissitudes de la vie, a tenu à accueillir les équipes de Dakar ne dort pas en mettant les petits plats dans les grands et en vous montrant des figures emblématiques de la ville de Ziguinchor. Alors, mesdames, messieurs, Ndeye Ndack se trouve à Ziguinchor tey moom la ñuy tàmbalee Ndeye Ndack foofa ca Ziguinchor di ko nuyu bu baax a baax te di ko ziar nuyu waa Ziguinchor yëpp ñoom DJ Buzz daañu leen fa fekk fekk fa monsieur le ministre Aliou Sow monsieur le de Ziguinchor Abdoulaye Baldé tamit ñoom ñëpp face à Père Boukhar ça va être terrible à Ziguinchor c'est bien sûr l'anniversaire du restaurant Le Cassa avec Ndeye Ndack bu ñu fa jógee dellu si waat Dakar bu ñu ñëwee Ndakaaru ki nga xam ni moom moo di ñaatam ba ñaatam ba dinañu yóbbu ci benn xawaare bu rëy ñu ànd ndoog du Ndiaye Mbeng nga xam ne dafay préparer li nga xam ni moom moo di maanaam anniversaire am du Ndiaye Mbeng 21 ans de musique alors euh, loolu yëpp daañu ci dikkaat ci kanam tuuti ñaatam ba moo ñu fay demal ci xawaare boobu bu ñu fa jógee ànd ndokk ki nga xam ne moom moo di DJ Sidat Notre-Dame du Liban la ñuy yóbbu DJ Sidat Notre-Dame du Liban li fa xew Sidat moo ñu koy wan après nag ñu daal di ànd ndokk Amina Poté Amina Poté yóbbu ñu Maris dégg naa ni sabar ga fa xew dafa ris mon diz ou diz mon ris loolu yëpp daañu ci dellu siwaat ci kanam waaye nag waa yàlla ñoo jël coupe bi seen équipe bu nawetaan di ASC Jubo jël coupe bi ci cadets yi jël coupe bi ci seniors yi waaye yéen mës ngeen gis loolu ñu daal di def tànn béer bu rëy joueurs yi daal di cay ñëw waa ASC Jubo daal di yëngal xaar yàlla loolu yëpp daañu ci dellu siwaat ci kanam tuuti laata loolu Ziguinchor la ñuy tàmbalee ndax nag Ziguinchor ñoo ñu sagal ak accueillir ñu dalal Ndeye Ndack def ko comme princesse Ndeye Ndack ñoo ngi lay nuyu naka waa Ziguinchor salaamaaleykum bonsoir Voilà Boubacar, le moment tant attendu est arrivé. Euh, je suis euh, pas trop loin du Casa, qui est un restaurant, je vous le disais tantôt au début de cette émission, très très très très sollicité par, euh, par les Casamançais, par les touristes, etc. Alors sur ce, nous sommes là pour, euh, pour participer à, à, à, leur grand événement. Ils sont en train d'organiser, de, de, fêter plutôt leurs 14 ans d'existence. Manam, anniversaire Bourri, anniversaire Bobo, nak dafa am ay autorité euh, yo xamantene djugé nañ ba Dakar pour ñew bokk ak ñom. Kon je crois que c'est un plaisir pour nous, wa Dakar ne dort pas, wa Adina ñu partager ko ak ñi nga xamantene bëggoon nañ fi nekk te nekkuñ fi wala ak ñi nga xamante ni xamuñu lan mooy Ziguinchor xamuñu fuy le Casa kon sans plus tarder dañuy dugg ci biir ma xool invité yi waaye avant ça dama lay proposer balaa ñu wax ak invité yi dafa am benn orchestre bu am solo nañ ànd ci biir Boubacar ci biir Dakar ne dort pas. j'adore tes boucles d'oreilles. vas-y y a pas de souci. allez Ndeye Dak na. bonsoir. bonsoir. ça va sant yàlla. alors Boubacar je te présente un grand DJ ñu ngi koy naan DJ Buzz nekk na benn boubsu boo xamante ni moo nekk fii ci Ziguinchor mën liggéeyam bu baax a baax a baax il est très très aimé ndax gars yi nee nañu dafa mën liggéey en plus mu ngi liggéeyee Zik FM. waaw dëgg la Ndeye Ndack tey nag euh, vraiment émotion bi ñu jàpp day tax rek ma ni ci gàttal vraiment gis nañu liggéeyu TFM ndax bàyyi ngeen tey. ndakaaru bàyyi ngeen li leen gën a jege ci région yi ngeen ñëw ba Ziguinchor vraiment ngeen ñëw tey ñun pour ñu won leen li nga xamante ne mooy kutimu Ziguinchor fekkee soirée bi nga xamante ne 100 pour cent Casamance. alors Fatou euh, le Casa actuellement nekk na restaurant boo xamante ni kenn dootu ko présenté yaa ngi koy fêté 14 ans bëgg naa nga wax ma nan nga tàmbalee ak lu tax nga tuddee ko le Casa. waaw le Casa nag aventure la boo xamante ne dinaa si sawar wax ndax euh, ñi ngi tàmbali novembre 1997 mu doon jour de Toussaint di premier novembre date Toussaint bi nag nekk date boo xamante ne ni ki mënuñu ko cee fàttaliku ak mbégte ndax xëñ na euh, li ci am du nekk nekkul feetu mbégte totalement moo tax ñuy toxal date bi ba mu yegg tey euh, le novembre ñu région boo xamante ne ni ki dafa nekk région sud bi muy zone Cap Skirring bi Elinkine sama sama côté yaay cosaanoo fa merci Ida de Ushiri, Lai Balde. Harina de Sujeso, Lai Sar Sass Laye Balde Ani Dada Goudombo Laye Balde vida da cambia nae dale pulo una casa más doña merece merece otra dai la foto casa más si que solo polo habla y manda pelendi tiño na cuño habla de pelendi casa más una casa más doña merece otra car j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui le groupe ICAS nekk na groupe boo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Ziguinchor ak fii ci Sénégal ak àdduna bi ko wër këpp euh, tonton na nga def. jamono rek maa ngi fi rek. lan mooy spécialité groupe ICAS. Euh, l'ICAS suñu forte bi mooy musique ndax ñun su musique la ñu dund musique bu nga gis ni ICAS mi ngi créé en 1959. donc be léegi am nañu ñeneen ñu nga ñu nga xam ne ñoom depuis groupe bi bu mu sosee ko ba tey ñu ngi fa waaye nag am na ay remplaçant ñu nga xam ne ay xale yu nga xam ne dañu juddoo ba mag ñoo dugg ICAS mooy ñun ak sama ñeneen moroomi xale yi waaw loolu ñun musique rek lañu dee dund. waaw. waaw mais dafa je veux dire que dafa xaw a traditionnel maanaam musique bi dafa rax tuuti euh, aada ak cosaanu Afrique da nga koy sentir bu baax baax a baax. waaw xam nga Sédhiou boo degee Sédhiou moomu capital mandeen la. cosaan boo buggee cosaan dëgg dëgg cosaan fii si Casamance foog nga dem Sédhiou nga uti cosaan so looloo tax ñun suñu musique bi bu ñu koy tëgg afro manding la ñu dee tëgg mooy suñu cosaan lu ñu xam di wëy ñi ñi xam ne ñii lu ñuy wëy cosaan la ba pare lu ñuy tëgg tamit dafa ànd ak cosaan. baraka mais ah, ana ki organiser affaire bi eh maire yow ci koñ bi nga dëkk wala dëkkoo fi yow. fii nga dëkk. kon ana ki organiser affaire bi fii. eh booy booy waxee eh, booy wax ak man damaa bëgg a sama say bati sama ko tii ma regarde yeux aux yeux nez à nez joue à joue eh ma faute ah qu'est-ce que ça ah. bàyyi fa. Melu Dia crédit Melu Dia vieilli là Oh ah, c'est dommage mon ami Alioune Sow mais Baldé comment vas-tu Baldé mais Baldé à Ziguinchor Baldé et le travail et la paix et vive la paix Baldé allez Baldé mon ami mais ton costume là ton costume hein est-ce qu'elle n'a pas mon costume là hein est que tu recevais du couture que je t'avais prêté eh, À Maroc, eh, tu recevais. Tu avais un problème de couture, tu portais un grand boubou. Et eh, je me on s'est rencontrés à Maroc, il avait un problème de couture parce que c'était une réunion ministérielle. Et Baldé devait être à l'heure précise, mais Baldé avait, comment dirais-je, un, et un pantalon jean déchiré. Elle m'a dit, mais, mais Père Boukhar, je lui ai dit, oui, Baldi. Mais Père Boukhar, est-ce que tu sais qu'un jour viendra, je serai ministre des Mines Et je te décorerai avec des diamants et de l'or. Eh, eh, eh, attention, eh, monsieur Keïta. Mais Keïta, Keïta, toi aussi, pourquoi tu me fais ça, Keïta Requette, tu m'as tu te caches Mais pourquoi tu te caches, Keïté Hein Keïté, combien de fois j'ai fait des interventions pour toi, Keïté Keïté, est-ce que tu ne m'as pas emprunté, Tu ne m'as jamais emprunté un petit Tu ne jamais emprunté un petit 200 Ah oui, c'est possible. Dans, dans ce cas, Keita m'avait emprunté un petit 200 000. Est-ce qu'il va me le tout suite, oui ou non? Ah, c'est réglera. Je t'attends dehors, Keita, je t'attends dehors. Ou je t'attends demain à l'aéroport. Tu ne voleras pas tant que mon poche n'a pas volé. Màgbẹ́gbẹ́ mi lọ ní àgbà. ñu ngi foofa ci restaurant Le Cassa àndandoog ak li nga xam ne moom moo di Ndeye Ndack ci restaurant Le Cassa alors restaurant Le Cassa di fêter 14 ans 14 ans foofu nga xam ni moom moo di ca maanaam euh, Ziguinchor alors ñuy félicité waa restaurant Le Casa bu baax a baax a baax a baax rawatina nag spectacle bu mag bi nga xam ni moom la ñu offrir ngeen gis per bu xar euh, quincaillerie la maanaam per bu xar moom daal daanaka quincaillerie la buy bouger rek alors quincaillerie muy bouger janoo ak ministre yi daanaka ministre yi yee nañu booy bugg a dee alors gis nañu aussi DJ Buzz Ndeye Ndaak mi ngi encore foofu nga xam ni moom moo di euh, ca Ziguinchor alors ñu bàyyi ko moom tamit Ndeye Ndaak mu wan ñu li nga xam ni moom moo di soirée bu am maanaa boobu nga xam ne moom la ñu organisé ci restaurant Le Cassa waa Casamance jóg nañu nag pour fêter 14 ans wu restaurant Le Cassa ñu leen di wax encore une fois de plus joyeux anniversaire. ya buɗe, hanyar ma jere